நீங்க என்ன சொன்னாரே def lu kenn deful dina la wax lu kenn waxul également de votre aimable participation pour la réussite de cet événement. C'est-à-dire de mention spéciale. ah oui waaw. waaw. kàddu gi yëpp nag cant la rek parce que dafa am liguey bi ñu ko bokkaloon xëy na man ma nek ci kanam mais am na ñu bëri ño xamanteni ñom la ko bokkaloon damay profito di nuyu ancien HLM yëpp. ñi ma ci xam bëriwul parce que bi fi dëkkee yàggul mais waa koñ bi won nañ ma loo xamante ni ñoom ñoo tax ma ñeme jiite ASC bi di remercier sama joueurs yi ñoom ñëpp ñi fi dëkk ak ñi fi dëkkul parce que coupe yi ngeen gis caaxaan mayewu ko liggéey bu metti la ñu liggéey ba suñu borom sutural ñu ñu gañe ko donc buñ ko bu yàlla defee lii dañuy gërëm joueurs yi gërëm staff technique bi dirigeant yi bàyyiwuñu kenn di wax waa HLM que ni nag équipe bi Papi moomu ko équipe bi keneen ak keneen moomu ko équipe bi équipe bu Thiès la guddi ñu toll ndax ñu ñooy champion régional war a teewal ASC HLM de Dakar phase nationale di woo ñëpp mag ndaw waa Thiès booy woote na ngay woo saw ñi ko ñi la gën a jege ba pare waa HLM la ñu njëkk a woo bàyyiwuñu kenn parce que ASC benn poche moomu ko yoru ko ñaari poche yoru ko équipe la équipe bu bi la ASC mooy koñ bi donc bu ñuy teewal ASC bi képp koo xamante ni doomu koñ bi nga war nga cee jàpp ñuy woo ñëpp xeebuñu dara ku ñu jàppale lañ bëgg parce que metti woon na mais suñu borom digg na ndax lii buñ ko xoolee rek effort bu ñu mën def dañ koy fàtte ndax lii dafa sedd xol naru moon jël parole mais loolu laa amoon lu may wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam

war a jóge fii bàyyee ko fi pour dem Dakar jël ndam li incha allah dinaa def sama loxo bu baax a baax a baax ndax euh, bu ma taxawee fii wax jàkkaarloog waa HLM samay mag ak samay rak samay yaay samay papa rek a fi ne man ba may nekk xale HLM bii laa doon fooyee xaw a màgg nekk ci yeneen affaire sax moo ma jàpp ma génn tuuti nekk ci yeneen affaire mais HLM fii rond point bi lu ma fi deful amul. léegi nag li ma leen ñaanal yàlla mooy ndam lii ñetti ndam yi yàlla na leen jig lépp loo xamante ni séntu ko ci sa ay sebi yàlla na leen ci yàlla jàppale bu baax a baax te ngeen continuer nag ñaanal papi mi bu baax a baax parce que président bu am jom la ku baax la ku jar yaakaar la maa leen sant di leen gërëm jële jërëjëf nee naa leen doxantu bi dafay continuer ci biir Thiès Info tey nag ñu ngi nekkoon biir HLM nee naa leen tey HLM moo xewle ndax nee naa leen c'est du jamais vu nee naa leen y a jamais 203 waaye lii nag euh, doy na waar ils ont récupéré la coupe régionale ñu daal di pare daal di jël li nga xam ne mooy zonal ñu daal di pare jël départemental maanaam ils ont ils ont récupéré les trois coupes yi nga xam ne moom la ñëpp doon wax biir Thiès waaye nag tey ñu àndandoo ki nga xam ne mooy Abba Seye nee naa leen moom tamit c'est l'enfant incontournable de la cité de HLM de Dakar parce que moom nee naa leen moom su tëggee ñëpp wuy si ko moom su xewlee mu neex ndax nee naa leen namul jeex si namul fenn Thiès mooy léppam kon nag Abbas nag nekk doomu HLM Abbas tey lan nga xam ci euh, coupe yi nga xam ne waa HLM ñoo ko gagné ñoo ko remporté. avant tout maa ngi nuyu ñëpp di gërëm di nuyu Thiès yëpp particulièrement aussi yow tamit di la nuyu di la encouragé ci liggéey bi ngay def. waaye nag mais HLM lii du fi gan parce que ñun fii lañu juddoo fii la ñu yaroo peut suñu liggéey moom moo ñu moo ñu poussé sax ñu génn ci yeneen région yi di dem ci yeneen dëkk yi

man daal ci ci gàttal ci gàttal sama xol dafa sedd sax bu mënuma wax parce que li ma dégg duma la dog duma la dog waaye mën nañ ni jig nga équipe bi ndax euh, saa yoo xewlee saa yoo def anniversaire fi nga koy defee ci penc bi ñu ko teg tey euh. mais tamit euh, est ce que abbas mi ngi yëngu toujours ci wàllu musique parce que abbas ñu ngi wax ni yaa ngi mbuur yaa ngi tànk mbuur yaa ngi tànk Thiès maanaam da ngay créé waajal benn album bu bees wala da nga gën a féetee mbuur parce que dañuy wax ne station balnéaire bi ñëpp dañ la fa bëgg doo tëggee dafay fees waaye ba tey nag doomu Thiès nga te da nga koy ndamoo saa foo nekk da koy gis nga gis nga gis nga nekk mbuur wala nekk ndar wala nekk terewul may ci espoir dañ naan ñaan ñaan ñaan ñaan su su dalee rek sonal borom gis nga mbuur liggéey moo ma fa yóbbu dama am ay ganu allemand yu fa nekk actuellement nii ma leen di jox ay cours de danse yooyu moo tax ma féete fa. noonu lay def tamit ak ndar noonu lay def tamit ci Petite Côte beeg yëpp donc kon man doomu doomu doomu HLM laa doomu Thiès laa foo ma di dem tamit suma liggéey moom ma fa yóbbu rek mais suma liggéey li may liggéey ba pare damay retourné ñëw fii nga xam ne moom laa juddoo fi laa yoroo fii nga xam ne fii la ñuy defee saa su ne spectacle yi nga xam ne moom moom ma gën a neex nee naa tout sànq nee naa leen euh, na mu ma Bercy na mu ma Bercy na mu ma na mu ma kii na mu ma Grand Théâtre waaw man fii mooy sama grand théâtre fii mooy sama Bercy et je suis fier waaw vraiment content naa trop content naa. mais avec la nouvelle année dañ lay wax bonne heureuse année waaye ndax euh, Abbas mu ngi waajal benn ci bu bees parce que nee naa leen CK bi mu wooyee moom Samba Allah dafa indiwaat leneen lu bees ren. waaw daal di tegaat leneen ci kaw plateau bi te ay doomu Thiès ngeen mais lan ngeen di waajal. parce que Abbas ku ne xam na ni yow du saison tijjee da ngay nekk ci wàllum simbi ñëpp xam la ci waaw doo sansee nekk na ñëpp dañuy kontaan kenn dootul namm Ndiaye di Ndiaye waaye tamit nag euh, ndax yaa ngi waajal dara parce que nag. il est temps il est temps nga créer benn affaire waa nga def benn affaire boo xam ne day nekk exclusivité biir Thiès. ñu ngi ci ñu ngi ci parce que gis nga dama fi génne cokkos meles ka ay raay dëkk bi di toj maa ngi togg loo xam ne waxuma la Thiès mais réew mi dana yëngu ndax cokkos meles ka raay du yëngaloon na réew mi. ba ku ci ne ñu ko doon xam ngeen dama xaw a fànn mais DG excuse moi mais guddi gee ko laaj xaw ma fecc ndax Cokkas Mbales Kaay Raay moom affaire bu garaaw la. loolu maa ngi préparé bu baax a baax a baax te bis bu génnee yéen waa Thiès Info yéen laay njëkk a woo leen kaay leen xool li ma génne ndax yen ay rajo ak télévision bi nga xam ne ñoo xew ci jamono barki yonent bi dëgg neexul. rien à dire rien à dire kon nag euh, dañ koy wax. meilleure année di ko ñaanal ci année 2017 bi moom mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci émission doxantu ci biir Thiès Info kon nag euh, xam naa ne dañ lay bàyyi nga continuer soirée bi waaye nag danga may wax kañ nga fi nekk ñu def benn exclusivité benn émission man ak yow toog jàkkaarloo teg ndënd yi ñuy tëb di fecc di daal. mais su boobaa su boobaa Thiès wàcc loolu dama koy yàkkamti jàkkaarloo yow damay neex. band dama ni. billaay loo wuyu wuyu fekk fi wuyu bandee bàyyam loolu laa yàkkamti sama sama jàkkaarloo léegi léegi kañ lay doon kañ lay doon ñu jox ko ñu joxe ñu joxe ko en exclusivité ci biir site bi www.thiesinfo.com kenn dootu ko présenté biir Thiès ak ci àdduna dafa war a àdduna. naa la kàddu gi say soo ko namee rek woo Euh, numéro am laa jël léegi ci téléphone bi rek ma daal di ànd ak euh, Saturne nee naa leen jinne caméraman la waaye jinne technicien la kenn du yow laaf chat xanaa neex. ñu ngi fi nga xamné moy mooy HLM route de Dakar aujourd'hui nee naa ñi nga xamné ñoy ñooy HLM ñoo gagné li nga xamné moy mooy les trois coupes euh, coupe régionale coupe départementale coupe zonale nous sommes accompagnés de monsieur Ali Aligna on va lui laisser la parole mu wax li nga xamné ne na ko tay li ci wote gi nga xamné wa waa HLM woote nañ ko ñu ngi leen dalal ci kaw plateau Thiès Info Aligna waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah bon ñu ngi nuyu ñëpp ku ci ne sa ak sa sant euh, di vraiment kontaan déjà parce que euh, tey dafa am lu xew lu rëy loo xamante ni euh, dañ ci kontaan bu baax a baax parce que HLM yàlla dafa dogal ba ñu créé ASC ba léegi mu def 40 ans ba ren ñuy fête 40 ans yàlla dimbali leen. aussi ñu gagné ñetti coupe yo xamanteni yépp dafa bokk dajé and ak 40 ans yi ñu koy féete mu doon événement bu reuy waa HLM ñëpp génn euh ñuy décorer membre fondateur équipe bi ak ancien yi fi nekkoon rek ñi fi bayé bàyyeekook ñëpp euh, donc lolu lu rafet de initiative bu bu bu noble la donc motax ñun ñu bayé suñu yité yépp yépp yépp yëpp tey ñëw tok fi nek fek ñom bu heure bi wax dëgg yalla xol seet na tay kontaan nañ bu baax a baax baax. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est la première fois que euh, équipe bi nga xam ne HLM mu gagné les trois coupes en même temps parce que dañ doon gis mën na gagné coupe bi daal di perte bi mais il a raflé les trois coupes ban gis-gis ngeen ci am est-ce que tamit du président ASC bi dafa faire moyens yu baax euh, jàppale joueurs les ba ñu mën dem di gagné li nga xam ne trois coupes yi. on peut dire que ni c'est la première fois ñu teg les trois coupes jël ko ci année effectivement aussi euh, moyens yi mënul woon ñàkk parce que nous avons ci nekkee am na foo objectif boo il faut ay moyens moo le mën j'appelle pour nga mën atteindre l'objectif parce que gagner finale zonale gagner finale régionale gagner finale départementale kooku ku amul moyen mënoo ko parce que li mu laaj dafa bëri euh, déjà euh, match yi boo ko calculer lu mu bon bon bon na 15 wala match yoo xam ne joué nañ ko donc loolu ay moyens la war a àndal kon bu leen yàlla dimbalee ñu am président boo xamante xam na loolu di leen si jàppale ak boole si ñi nga xamante ni tamit aussi ñu ngi jógee ci àll ba bëgg HLM ñëw di si jàpp di si euh, a mën a gagné tay quoi voilà euh, n'est-il pas temps à Thiès ñu jël li nga xamné comme HLM gagné ngeen 3 coupe ñu jël ligue bu mag bi jox leen ko denk leen ko ngeen euh, mëna propulser wu mëna dem ci kanam euh, ba équipe bi jeune yi ci nek ëlëk ñu mën leen dess li nga xamné moy équipe nationale bu maga mag bi hmm. wa loolu lañu ñaan yalla parce que euh football bo ci nekké surtout rawatina ndaw ñi donc amna lo xamanteni mom mom lañ ci sentu ñom ëlëk ñu nek professionnel té pour nak professionnel légui euh méthode dafa changer parce que dañuy demander à ce que il faut nga dugg équipe nationale ba pare su ko defee club européen yi mën laa jël kon bu yàlla dimbalee am doomu HLM bo xamante nek na fi ñu dénk ko ligue professionnelle donc xalé yi nek ci nawetaan di football mu mën leena dimbalé aussi ñu jaar ci club yi ba dugg équipe nationale mëna dem après à l'extérieur lolu indi ñun duñu def lu rafet lu ko parce que déjà ñun li ñu suñu objectif dal lenn dongu la moy xalé yi ci nek di yëngu waxu ñun ñun parce que ñu ay supporter ay dirigeants rek lañ di jël suñu doole di ci def mais xalé yi nga xamante ci football bi lañ yaakar nek ci ba tax ñu ci yëngu bàyyi seen activité yëpp ñu xool luñ leen on a améliorer cette situation ba yàlla dimbale ëllëg si bi ñu professionnel. oh mais est ce qu'on peut demander est ce que il fait de la politique parce que y a tout nañ ni yaa ngi def benn genre sorti bu ndaw euh, xamuñu ndax da nga jotee kenn wala da nga nekkoon ci de parti la di jotee ka euh, nga xam ne moo nekkoon de la euh, C'est quoi le problème Aly fait-il de la politique ou il ne fait pas de la politique. je suis le coordinateur national du mouvement Yewwi euh, membre du coalition Mati 2012 en plus je fais partie de l'affaire. donc je fais de la politique carrément en plus sorti bu ndaw bi def du dara lu dul benn nit bu déplacé wu ñëw sama kër liggéey bi ma liggéey am solo lu nga xamante ni wax dëgg yàlla lii ma fi am tey HLM ak dixième ak carrière gi yëpp liggéey bu yàgg la liggéey boo xam dañ ko liggéey ci benn fan donc suñ demee ba ci biir ba yàlla dogal loolu lépp sotti am ñuy ñëw di def euh, liggéey boo xam récupération lay doon ci côté boobu lañu xawoon am tuuti jeexi jaax rek mais yàlla dogal na lañ ca waroon a wax ñoom ba ñu comprendre ñu wax nañ leen ko ba nga xamante ne ñun xam nañ ci li ñu ne mooy du lenn lu dul jàppale le président Macky Sall képp koo xamante ni yaa ngi feneen ak loo mënti liggéey lu mu mënti doon ñun li ñu soxla mooy bu fekkee da bëgg a dugg ci parti bi actuellement muy dixième di carrière di HLM ak li ko wër zone bi ko wër yëpp yëpp suñu ginnaaw ngay ñëw topp

mën japp tout surtout législative bi mu génn ci ak ndam bu sedd guy bu ñu démé ba 2019 aussi ñu mën ko jappalé ci loolu pour mu mëna a jëlaat réew mi donc am nañ yaakaar bu baax a baax que ni liggéey bi ñu jël su fekkente ni yàlla dogal na takkul te nit ñi ñu ngi ñu si comprendre aussi bu baax a baax di ñu fekk si bu ko nee incha allah 2019 am nañ yaakaar ni président dina am deuxième mandat. mais aussi vous avez dit que pour que les gens sortent massivement pour aller s'inscrire au niveau des des des listes électorales mais aussi est-ce que il y a pas de problème parce que dañuy wax ni nit ñi dañuy yeewu 5 heures du matin pour di rang léegi ban jàngat nga ci am ak ban message nga ngay envoyé ñi nga xam nekk préfecture nekk ci liggéey bi ñu jàppale jeunes ñu mën a am ñoo ñëpp carte d'identité benn yoon bon xam nga dafa am benn liggéey boo xamante ni man maa ngi ko ci doon def yàgg na du tey donc wër naa ci pratiquement rajo yi nekk Thiès yëpp waxtaan ak ñoom def ay émission yoo xamante ni juste pour ñaax nit ñi ci nit ñi war a def pour inscrire duñu am benn problème parce que inscription bi soxlawul nga war a yeewu 4 heures wala 5 heures du matin pour mën a dem di rang foofu ba nombre boo xamante ni moom la ñuy jël par jour nombre bi le matin la inscrire par exemple 50 wala 100 personnes donc yow so ñëwé yalla dimbal la nga bok ci 50 personnes wala 100 personnes yoy ñu wara jël soxlaatul nga fay rang ba suba da ngay dem ñibi sa kër teddi ba 8h nga ñëw bu limé sa tour nga duggu ñu bindal sa ñu inscrire sa carte nga dem sa donc fanan bi ñu fay fanaan peut nit ñi ñoo bëgg sénégalais mo mel non donc lo woté lu né rek dina am ñoo xamanteni ne dañu bëgg ci nit ci ci commencement ba mais pour éviter lolu mën nañu def ben affaire bu gëna yomb ci ñoom ku dem boy doxantu sax nga fa jaar inscrire pour suba bu la lendemain boo xëyee huit heures nga dem toog ba bâche yaa ngi fay defar chaise yaa ngi kon nag euh, dañ koy bàyyi mu continuer la fête avec l'ASHM comme c'est aujourd'hui l'ASC euh, l'ASC HLM qui gagne donc euh, yàlla na nekk ay ndam ndam ci ay at yu bare bare merci beaucoup.